jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax waaye sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ngir saa su nekk ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën koo am à temps réel euh, comme ni ñu leen ko waxee mbokk yi tey xam-xam la ñuy waxtaanee waaye duñ ci wéet benn yoon ndax dañ ciy feggoog suñu xarit suñu kilifa muy Serigne Ndiaye euh, basmala yaakaar naa ne miin ngeen ko bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy wàllu ñaan waaye rawatina rawatina wàllu nga xamante ne mu ngi ciy yëngu muy faj ci mbirum euh, tradipraticien mu ciy def liggéey bu ama am solo ñu koy dàkkantalee rek borom satisfait ou remboursé yaakaar naa ne loolu kenn du ko wax ci réew mi te tegoo ko fu wér dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan su ko defee ñu wéyal suñu waxtaan sëñ bi ñu lay euh, nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñuy nuyu mbokk Sénégal yëpp du nuyu mbokk diaspora bi suñu soppe yi fu mën a nekk rek Serigne Ndiaye Basmala ñu gën koo xam si borom satisfait ou remboursé kon ñu ngi leen nuyu di leen genre di leen ñaanal jàmm di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp di ma teew a liggéey comme ku mel Seydina Issa nga xamante ne mooy liggéey soo fi nekk soo fi nekkul yëpp ñu ngi nuyu di ko ziara di ñaanal ñëpp jàmm di la wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ayca nuyoo bi am na solo waaye ginnaaw bi ñu la nuyoo rek euh, sëñ bi ñu ngi ci weeru koor mhm. euh, ku ku ne xam na ne weeru koor weeru ngëneel la weeru mhm. tawféex la waat la ak baal la ak mhm. waaw waaw ñu ngi baalu ñëpp àq. di leen wax ne euh, Ndiaye Basmala moom mu ngi baalu ñëpp àq. di wax ne fépp waaye nekk mën nga noo baalu àq di ñaan suñu borom weeru koor bi yàlla bu mu doon suñu mujjantal weeru koor. di ñaan suñu borom lu ñu si jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangul si barka alxuraan amin yaa rabbi ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, sëñ bi actualité la ñuy mhm. bokk na ci li nga xamante ne moom mooy tolluwaayu réew mi ginnaaw libération Ousmane Sonko mhm. euh, élection yi ñu mal ko ni ki dimanche mhm. euh, gars yi ñi ngi ci seen campagne coow li bëri na kenn ku nekk rek di yëy yàbbi ci mbir yi waaye man rek tey bëggoon naa xam li nga xamante ne moom mooy sa sa sa sa position ci mbir yi waaw man nag soxna si yàlla dafa dogal li may faral di wax dama benn euh, ku naan Bourguel daf maa sees woon fii Bourguel xam ngeen ko. Mm-hmm. moo ko si élection yi si Amadou Ba lu bari. loo xamante ne lu yéeme la te maanaam moom sax boo xoolee si YouTube di ngeen ko gis. ma ne ko Amadou Ba chiffre 114 la. 114 mm-hmm. fois 9 dala jox 1026 mu toll ak basmala bisimilah rahmaani mm-hmm. ma ne ko Amadou Ba si basmala lay faloo. booba léegi nag euh, maam euh, am na sax ñu ma si doon dégg. mais après déggaatuma leen. mais Amadou Ba du falu. Amadou fa Amadou Ba du falu. du falu 2024. lu tax sëñ bi. waa maanaam euh, tabiaam si lu ko war a ñaanal muy basmala la ñu ko ñaanalul Amadou basmala kese ko mën a fal. Amadou Ba basmala képp moo ko mën a fal du falu man jaa basmala xam nga dama la xam ne kenn du ko wax. gisagoo kenn ku génn Amadou Ba du falu 2024. Mhm. benn sëriñ waxu ko de. man jaa basmala maa kii wax ne Amadou Ba 2024 du falu. Mm-hmm. billaahi wal kitaab mais nag uh, fi mu nekk nii bu ñu buñ bu ñu xoolee mbir yi ni mu demee daanaka itam dañuy jël avantage yëpp jox ko ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. waa xam nga lu war a lool mooy ba si Diomaye Faye chiffre 111 la. 111 mm-hmm. fois 3 da lay jox 333. mooy jalasa jalasa mooy toog ñi njàng xam na li may mm-hmm. kon boo xoolee ba si Diomaye Faye chiffre am boo ko fois 3 da lay jox. 3 333 muy jalasa kon Bassirou Diomaye fay am na 1100 pour toog jël si réew jël réew mi. am na mille chances pour jël réew mi moom si moom maanaam ba si Diomaye Faye fi neen ni ma xëyoon nii euh, ñi nga xam te ñoom maanaam ay ay ñoom waa Pastef leen bokk suñ mën a génne saraxu naat nañ ko génne. saraxu naat. naat saraxu mhm. naat ku ko mën a génne. Mhm. te nga bëgg ba si Diomaye Faye fàllu na nga ko génne. Mhm. mooy sarax bi. mais amul nag amul xar amul gëlëm saraxu naat la. mais Amadou Ba moom du falu. mais mais sëñ bi ginnaaw ba yow yaay borom basmala. la te Amadou Ba la moo ko teree. falu moo koy fal euh, pourquoi pas nga jéem koog jokkoo moom wax ko ko. waaw xam nga man Bourgué daf maa sees si wax ma si wax Amadou Ba ma ko Amadou Ba basmala moo koy fal su bëggee falu. Mm. fi muy dem yëpp du foofu man waxoon naa ko boo xoolee vidéo yi di ko gis. Mm. sama sees bi laa toog ma ne ko Amadou Ba du falu. Mm-hmm. parce que ndax du falu mooy Amadou Ba mën na falu mais bu dee si kaw mu dem ñaanlu si basmala. Mm. ñi koy ñaanal yëpp. demagul foofu noonu. Mm-hmm. parce que chiffre 114 si basmala la jóge mm-hmm. te mu am na 1100 ndax sa jaamiyoo moo tolloog 114. Mm-hmm. am na 1100 bu mbooloo mi dëgmal ko. mais amul ku ko ñaanal. kon amul ba du fàllu soxna si man maa la man jaay bas man maa la wax loolu. ah mais est fi mu nekk nii rien n'est perdu tey bu ci jugoon taxaw ci ndax mbiri du saafaraw. ah waaw mais fi neen élection yi ñëw na fi neen nii. du falu beneen yoon rek. waaw fi neen daal du falu moom. kon daal fi neen daal ku koy mën si basmala su bëggee mu falu. la kepp mooy fal Amadou Ba. ay ci am na solo euh, ginnaaw bi loolu itam euh, dañuy jublu rek ci li nga xamante ne moom mooy xam-xam. Mm-hmm. Euh, waaye buñ ko waxee bunt bi seet la ndax kenn mënul wax ñaan. Mm-hmm. te xamoo li nekk ci yow ba pare. Mm-hmm. seet di bunt bi tey jii sëñ bi boo ñu doon wax ci wàllu seet rek lan ñuy wax. yàgg naa kaa wax nee naa ku bañ wax la ñaata butit nga bul ma seetloo. loolu yàgg naa kaa wax di. maanaam ku am lu muy nëbb. waa ku ku am lu muy nëbb bañ ma xam ko bul ma seetloo. loolu man yàgg naa kaa wax moom. loolu gars yi xam nañ ma si te man yaay bas ma la ku ma jëflanteel même bu ma la seetalee te gisuma la dama lay yelwaat sa xaalis waaw man maay borom satisfait ou remboursé loolu ñëpp xame nan ma ko. satisfait ou remboursé du aloolu jàmbur. Mm-hmm. risque la. waaw du lekk aloolu jàmbur mm-hmm. moo tax nag ku may jëflanteel damay gëm ne li ma la ñaanal day nangu. Mm-hmm. waaw mu ngi noonu. ayca euh, tey jii bu ñu waxee seet fii Sénégal bari na façon yi nga xamante ne nit ñi dañ koy def. ñi dañuy seetee nii ñii di seetee ne tey jii am na ñoo xam ne dañuy ne du ma du ma jullit laa damay listixaarlu mhm, mhm. ñi ne damay seet ci pettaaw mhm. am ñoo xamante ne duñ ko nangu tey ji boo ñu doon wax yan façon seet ngay seet pour ñi nga xamante ne bëgg nañoo jokkoo waaw seet moom daa bëri façon am na ñoo xamante ne léeg soo wootee man à de 18 heures damay listixaaral kon lu mel ni koor gi moom listixaar gi laa def moom mais tey bu dul weeru koor ku bëgg tey ji ma seetal la am na ñoo xamante dañuy yàkkamti bëgg ma seetal leen si saa si. léegi léegi ñu woote léegi léegi nga seetal waaw man léeg-léeg maanaam ma aalu sax nga woo ma wax la nekk si yow lépp te du ma la seetaan <laughs> ndax man secret basmala laay liggéey hmm. waaw secret basmala moom laay liggéey hmm. moo tax ñu bëri si wàllum seet léeg nga ñëw woo ma rek ma wax la sa soxla yëpp hmm. du jar sax ngay seetlu waaw léeg-léeg nag maanaam nga war a seetlu ma wax la lépp loo xamante ne maanaam tey ji nekk na si yow sax xamoo ko dama la koy xamal waaw am na solo mhm. ayca euh, balaa balaa ñuy xuus tamit dinañ taxaw ci li nga xamante ne moom mooy xalwa mhm. gis nañ ne euh, bokk na ci li nga xamante ne mooy say fort say spécialité saa su nekk li ngay tëjul kilifa yi bëri na lool mhm. ñu bëggoon xam rek euh, sëñ bi boo ñu doon wax ci xalwa lan lan mooy xalwa gis nga wàllu xalwatu jamono ji bëri na ñu koy dugg si réew mi te seen xalwa du si am benn résultat lu tax parce que xalwa gis nga soxna si ku la dugal xalwa génn di la làkk ay daadaa naan la soxla bi xam naa fekk ay ma dina faju ñuus ko man jaay basmal maa la wax loolu di la yat dóor ko ma bëgg a dee xaloo waroo waroo koo dugal nit ki gént aajam fajuwul waaw xam man jaay basmal damaa xaw a naqar moo tax ma ni may xeen ni bu la ma ko jàppee parce que maa doo damaa direct man maanaam du ma waxantu waa Sénégal xam nañu waa bitim réew yi may suivre xam nañ ma ñi may jëflanteel xam nañ maay kan xaloo ku la ko dugal génn da làkk ay daadaa jël yat dóor ko ba mu bëgg a dee mu delloo sa xaalis mm-hmm. xalootu mooy loo xamante ne sa diggante ak sa borom nga jàkkaarloo mm-hmm. nga ñaan nga woo ko mu la nga ñaan ko mu may la mm-hmm. te nag booy lekk lu lew di nga ñaan yàlla mu nag mais ñi nga xamante ne tey ji ñoo fi nekk di dugg xalwa dañuy lekk lu rek yow mënoo di teg di dil <laughs> laaj ni ki deux cent mille trois cent mille mu dëgal la nga bole ko ko léegi nan nga ñaan yàlla mu nangu hmm? moo tax xalwa léegi yombul mais njaay bas ma la man ku ma dugal xalwa su ma génnee te sa aajo xalaw xajuwul mboole li ma jox dama la koy delloo man noonu laay liggéeyee mhm. mais mais mais tey bëgg naa xam itam xalwa mhm. euh, ban importance la si nit ki ba mu war koo dugg tey ki dugal xalwa ban mhm. importance la xalwa bi di am waaw ñoo xamante ne si pour nga ñaanal leen foog nga dugal leen xalwa am na ñoo pour nga ñaanal foog nga dugal leen xalwa pour nga mën leen a ñaanal am na ñoo xamante ne seen ñaan sangat kese faju ko xalwatu nga leen di dugal ñaanal leen yàlla seen aajo faju ma dama léeg-léeg ma seetal nit ki ne ko say mbir xalwa kese ko mën a jagal léegi nga am entreprise boo xam day waaj daanu mais foog ñu dugal la xalwa pour suñu borom téel la ko léegi nga am mbir moo dugg boo xamante ne njaaxum la jaaxal na ñu war la tëj ñu dugal xalwa suñu borom teggi la ko teggi bu gaaw yooyu yëpp maanaam xalwa day am lu mel noonu wala nga bëgg a xëccoo kooku benn par exemple tey jii ñii di xëccoo nguur ñi teg ku si bëggoon nga jar koy dañ lay dugal xalwa bu la ko dugalee rek nga téye ko waaw mais si biir dugg xalwa bi comme par exemple man tey bu ma comprendre nga ne ma dama lay dugal xalwa mhm. mën naa xam maanaam définition dugg xalwa si biir xalwa bi mhm. ñaan yooyu def ak suñu borom la waaw wird la wala xam nga ñun secret basmala lan yor mhm. te la ñi ma suivre xam na li ma 66 xuruf ñun moom lan yor de amul lu ñuy bëgg si àdduna bii di ko ñaan si wàllum aajo te suñu borom duñ ko may xalwa boo duggee daa ay ñaan yooy def mais sa diggante sa borom la doo lekkul mburu doo lekkul aram xaro xalwa sax am na kilifa yu ne fi dëkk bi nga mooy yàlla wala faa duggee xalwa moo tax xalwa léegi jafe sëriñ su bari wante man Ndiaye Basmala maa ne ku leen mën a dugal xalwa te ajo faju jëla njat ngeen ñuus ko man maa leen wax loolu ayca <laughs> am na solo waaw sëñ Ndiaye Basmala mhm. waaye ba tey itam nañ wax ci wàllu ubbeeku mhm. euh, jamono toll na foo xamante ne des fois say mbir dina dëgër ba nga yaakaar ne dañ laa liggéey des fois say mbir dëgër ba nga yaakaar ne yow mi daa am loo àndal fekk mhm. tëju moo koy def waaw xam ñun nag ubbeeku bu ñu siy liggéey mooy fatxan fatxan laay liggéey si wàllum ubbeeku mm-hmm. nekkul ñëppay ñëw ma liggéeyal leen ko mm-hmm, sa tabia su ma xoolee attunu ko sax du ma la ko liggéeyal mm-hmm. fatxan fatxan googu noonu su ma la ko liggéeyal dama la koy garantel boo toogee une semaine te tijjeeku woo du ba sama kër ma làmb sama poos delloo sa xaalis soo nekkee bitim réew foo mën a nekk ma liggéeyal sangat fatxan fatxan googu moo xam nga tëju ba nga jaaxle munoo am dara wala say mbir yi tasaaroo ma liggéeyal la ko utile ne la utiliser ko ni ma la ko waxee bu soobee sum te man xam nga damaa maîtriser al mënu jum xam nga ngeen mënu jum mooy xam-xam nit ki da ngay xam xam lan nga ko war a jox ak lan la war sangoo am na ñoo xamante ne yaa ngi lay bind tey xaatim boo xamante ne seen tabian attanul xaatim boobu bu ko sangoo day tëju moo tax léegi nga dem sëriñ mu liggéey la nga mujj tëju doo ubbeeku mais dangay tëju moo tax xam-xam na gaay jàng ji soxna si gi nga xam-xam dañ koy jàng xam-xam du loo xamante ne dangay toog ni di làmbaatu déedéet xam-xam da ngay jàng ji nga xam li ngay liggéey nit ki bu ko jëlee mën a gis résultat mais bëri na ñoo xamante ne tey sëriñ soo xam ñu ngi si internet bi di wax rek maa ngi seen audio ñu dóor nit ñu lekk seen xaalis rek. bëri na fi mais dinaa jëflante ak ñoom nag. ah barki sëñ naa dinaa jëflante ak ñoom képp ku fi naxaati dinaa la génne réew mi. <laughs> ah mu ngi noonu. kooku mooy borom. satisfait bu raxas gi de bu soobee suñu bopp ko ba <laughs> man maa la wax man jaabas ma la. mbaa képp kuy naxaate fi Sénégal lekk alool jàmbur yi. Mhm. wallaay dinaa la génne réew mi nga jëkk génn doo xam la fi génne. ayca am na solo sañ bi tam suma la déggee bëgg naa ñu taxaw ci wàllu nopp bu buñ nee noob itam bëri na façon bëri na ñu koy def façon bu nekk da nga koy gis des fois sax da ngay connecté wu ci réseaux sociaux yi gis ñu ne la boo jëlee lii def ci lii di noob sa jëkkër mm-hmm. tey jii boo ñu doon ñëwal euh, ci ci noob bi nga xamante ne moo tax ñu naan noob mm-hmm. waaye ndax tamit dégg benn noob rek ñu ne la nii nga koy defee rek comme man ma dégg ko si internet war naa ko a jël man utiliser ko si caaxaan képp si la nekk gars yi sëriñ si naan ay noob noob si caaxaan képp si la nekk noob bokk na si lu gën a jafe ñu naan noob moo gën a yomb ci man maa la maa njaay basmala ma li ma wax nag borom xam-xam sax du ko dindi noob moo gën a jafe si lu yàlla bind noob moo gën a jafe si lu yàlla bind man njaay basmala nga ali wax xànjar bii nga gis nii kii noob kese moo ko tax a jóg nga am nasaraan boo xamante ne xam nga tubaab ñu bët na tubaab moo gën a naqaree noob tubaab naqariwut a noob de yow yaa xamul fi ngay jaar ak moom mais tubaab naqariwut a de yow yaa xamul fi ngay jaar ak moom ba noob ko ali wax xànjar bii am na loo xam bu ñu ko si liggéeyee ba teg ko si xal ba liggéey ko ñett fan mboolem koo soxla bu ñëwul ba si yow yow mboolem mi ñu joxoon dan la koy delloo. xam-xam day wóor nga xam-xam. xam nga ñaan yàlla du luy làmbaatu gis nga ñaan yàlla assurance moo si war a am donte yàlla mooy maye. mais da war a assurer nit li nga koy ñaanal. parce que yow yaa yaa ñaan ko ti yàlla. muy julit ngay julit mu ne la ñaanal ma yàlla yow mën nga. kon ku mën warta échec. kon ñaan yàlla foofu la toll boo échecgee nit ki da nga ko war a delloo xaalisam. loolooy dëgg mu ngi noonu. Mhm. def comme sëñ Ndiaye Basmala. waaw Ndiaye Basmala sàtt si remboursé rek boo gisul li nga bëgg remboursement rek. ayca waaw kese. <laughs> ba tey bi dinañ wax ci li nga xamante ne moom mooy papier bu ñu nee sëñ Ndiaye itam sa digganteeg waa bitim réew nekkul lu ñuy naatable. Mhm. yaakaar naa ne ci wàllu tukki moom ñi nga xamante ne bokk nañ résultat yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci réew mi kenn du la ci génnee. dëgg la boo ñu ci doon ñëwal tey loo ñuy wax. wàllum këyit moom du ma bëri sax lu ma si wax lu bari. ndax euh, sama benn waa joo xamante ne Pape Seck lan koy wax mu ngi fay si si eh, Italie dëkk bu naan Rome. nee na ma sëñ Ndiaye Basmala wàllum këyit mel nga si noo xamante dañ fi toog la waxtaan comme fi nga dëkk. te moom mu ngi may seeraan li may wax. waa Rome bu naan ñu may seeraan xam na li may wax. si wàllum këyit. su ma la ko liggéeyalee dama lay garantel yi ma lay jox xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi toog fi naan këyit ñetti fan ñetti fan di di wax loo xam naka nga am na xam boo koy wax nii lay seeraan danaan kii lu mu wax du dëgg këyit ku leen mën na la ko ñaan si ñetti fan waxul dëgg mais bu dugalee say kayit man Ndiaye Basma nga déggante man kayit yi génnagul ma liggéeyal la ma lay liggéeyal ne la te kayit nag li si gën a yéeme mooy su ma la koy jox nga takk du ma la jox nga sang du ma la jox nga naan su la doyee. Mm-hmm. te dama lay appal bis yi ma lay appal la nanga bu fekkee dugal nga kayit yi boo toogee ab diir kayit su génn woo ma delloo sa xaalis. Mm-hmm. soo ko dugalagul ñu nga déggante man ma liggéeyal la may liggéeyal nga dugal kayit te kayit génn ma delloo sa xaalis mm-hmm. kooku Ndiaye ma la moom moo bëri si réew mi nan ma nangul lii nan ma nangul lii <laughs> satisfait wu raamu seegi moom nan ma ko nangul xam ne man maa koy def fii si réew mi. amul kenn ku ma si roy nag ah Sénégal xam nga ne nag euh, dafa nekk réew mi xam ne xam naa ne ku fi wax satisfait ou remboursé moom boo defal gisu ko dina ñëwaat ci yow man kay si dama ne kola commentaire ti leen ma ko ku ma mhm. jëflante de maa la wax loolu balaa ñuy jeexal itam sëñ bi dinañ wax ci nga xamante ne moom mooy rab mais balaa loolu bëgg naa ñu taxawaat ci papier tuuti mhm. tey jii ni nga ko mën a ñaanalee ki nekk Sénégal bëgg a tukki mhm. noonu nga ko mën a ñaanalee ki nekk Europe yàgg fa lool am jafe-jafe am papier bëgg a nekk ci yenn entreprise yi wala yenn société yi war a déposer ay këyitam. Mhm. noonu la yombee ci nga ñaanal leen ko. waaw maanaam wàllum papier moom. mooy ki nekk Sénégal bëgg a dem. ak ku nekk Europe bëgg a ñëw mu tëla mhm. yëpp si wàllum papier la bokk. mais tënkuwul ci tukki bi même ci liggéey yi bëgg a déposer. ay même si liggéey bi sax ngay déposer këyit nii très bien ngay déposer këyit entreprise mënuñu laa jël. Mhm. entreprise bi ma nga fay déposer mënuñu laa jël même boo ñëwee si njaay bas ma la. moom kay jël rek mbala delloo sa xaalis kay man moom ku ma jox sa xaalis mu ngi mel nga am sa dépôt dem na ndaw si dépôt ma mu dépôt la sa xaalis nga téye loolu képp la de boo gisee li ma la wax falilaa alhamdu soo gisul li ma la wax ma delloo sa xaalis boo gisee ku ma mu ñaanal la ayca euh, am na solo balaa ñuy jeexal ñu wax ci wàllu rab euh, buñ nee rab xam ne eh, bëri na ñi nga xamante ne da leen di sonal ci réew mi jamono mm-hmm. rawatina nag buñ koy xool dañ naan ñi nga xamante ne dañoo féete ndaw mm-hmm. d'habitude ñu bëri lu bëri da leen di ñu naan rab rab rab mais man dama bëgg nga wax ma si boppam rab ndax lu existé la ndax man des fois damay dégg ay ñu naan rab amul jinne moo am jinne amul rab moo am. non rab am la jigéen joo gis boppam di metti lu bari dafa am rab jigéen joo gis ngay jékki-jékki muy mer kenn du ko def dara am am na si góor am na si jigéen nag si jigéen nag laa jël exemple mais am na si góor am na si jigéen rab nag dafa dafa am boo xam ne dama koy faj en distance am boo xamante ne da ngay ñëw ma seppi ko nga dem ñibbi. li may wax nag bu su ma ko seppee nga toog une semaine santi na rab bi dañuy siw ma delloo sa xaalis. mais ñi naan rab kenn mënu koo faj ba mu wér nag. xam nga rab dafa doon loo xamante ne dafa nekk ak nit ki tey ji sa kër gii tey ji bu la neexee sa kër nga ne sama néeg bi nii doo fi dugg soo ma neexee ma ne doo dugg sama néeg bii am naa si droit. ndax maa ko moom. karab am nga droit ne ko carrément dootoo ma yàqal da ngay génn sama jëw dootoo ma yàqal dong nag ñooy wax loolu ñu mënul faj rab dong ñoo rab kenn mënu ko faj bi wax nii rek pour pour maanaam nga yaakaar ñëpp a yem. xamul way bañ Sénégal ku génn ñu jàpp ne yow yaa ñëpp yéen a yem. xam ba léegi mu ngi am. ñuy mën ba léegi ñu ngay mën. kon ñëpp a yem bu ko kenn wax ñëpp yem moom foo ko dégg am na koo mere. ñëpp yem foo ko dégg am ñëpp nag yamuñu am xam ba léegi fa mu am ba léegi mu ngi am am nag ci yéen ñu xaw a doy waar. doo dëgg la man am naa cag-cag goo xamante ne moom daan livrer ay garab daa jékki-jékki ma gëj koo dégg ndeke sëriñ la mu waaw man damaa jëg gis TikTok yi nii rek xoolee ndek ñu ne ma nii ñu bindee ma ko ne sëriñ la. Mm-hmm. doy na waa te yàlla xam na ne yaa ko gën a aay. <laughs> xam nga kon lu mel noonu moo yàq réew mi léegi. lu mel noonu moo yàq mi moo tax nag njaay bas ma la sore na ak ñooñu. bu ko kenn tëkkaleeg ñooñu te koo man mosaleeg sa xaalis soo gisee sama vidéo génn nga ne njaay bas ma mosaleeg sama xaalis. Mm-hmm. Euh, tey jii sëñ bi ki nga xamante ne rab da koo jàpp. Mm-hmm. nan la mën a xamee ne que moom rab dafa nekk ci moom. waaw booy toog sa di bon. nga yor loo yor mu dem comme ngelaw ngay toog sa bopp di metti ngay tëdd war a jóg sa yaram bi di diis lépp rab day def loolu. yaay mhm. eh, bu dee jigéen nga góor gu ñoo dem. Mhm. bu dee góor nga ndaw soo nekkal une deux trois xuloo doo xam lan la. Mhm. daanaka am na ñoo xam dañuy am ay cinquante cinq gel si benn weer. jigéen ñoo xam ne cinquante cinq far dañ koy am si benn at. yooyu rab la. loolu nag bu la dalee. xamal na rab nga am njaay bas ma daf koy sempite ko fële. mais te boo bu fekkee dalaa téye mënoo am jëkkër su ma la ñaanalee 40 jours te amoo jëkkër ma delloo sa xaalis. 40 jours 40 jours boo ko toogee amoo jëkkër ma delloo sa xaalis bu dee góor nga amoo mhm. na gaay mhm. euh, ne rab daf ko daf ko judduwaale dañuy ne am na ñoo xam ne dañ koy judduwaale. Mhm. am na ñoo xam ne da ngay dem ba màgg nga xëy mu dugg la. Euh, tey jii ki nga xam ne da koo judduwaale ndax mën na denc moom. dama koy dindi ba mu set boo ko judduwaale dama koy dindi waaw ba mu deñ ba mu set wecc kay lu bokkul ci yow kay boo ñëw ma dindi ko moom. am na solo balaa cat moom benn fan laa koy diin cat benn fan laa koy diin si nit ki. benn jour laa lay jox ne na deñ mu deñ définitivement. xam nga man sëñ bi nag man ban problème laa am. Mhm. man daanaka ñi may waxtaanal ñëpp dañ naan ma. cat mënul denc nit day wàññeeku. mais yow su ma ñëwee da nga naan ma day deñ day jeex tàkk ba daal loolu jaaxal mooy mënuñu. ah nit ki xam nga soo mënul da nga naan yow ya yow da nga naan lii mënta ne. Mhm. lii mënta ne moom foo ko gisee xam ne yow sax xam-xam moo fa àggul. Mhm. waaye Ndiaye Bass ma ne ñi jëflanteeg moom xam na li muy wax man lu ma mënu moom du si dugg léeg nga ñëw ne ma jaay damaa bëgg naa ma ne mënu ma ko de nga retaan dara ma leen yéen yéenay fenloo sëriñ si sama baay daana wax naan ma nit ñi ñoo la jox yat ne la dóor ma tey ji su ma la joxee yat ne la ma nag soxna si dig ma dóor ba ma bëgg a dee ndax maa la sant ne la dóor si yow la wax la loo mënul nga ne mënuma ñu ne la mën ko yow nga léegi seen xaas def lekk def lekk seen xaas te li ngeen wax amul loolu moo yàq réew mi léegi kon na na nit ñi yeewu daal xam si wàllum ñaan yàlla ñu yeewu xam internet bi daa yàqu léegi ñëpp ay génn. mënoo mm-hmm. xam ku mën a ku mënul. wante njaay basuma la koo jox sa xaay du ko lekk. Mm-hmm. wasalaam. am na solo euh, bu ñu bu ñu bu ñuy jeexaat rek ñu wax si produit yi. Mm-hmm. comme ni ngay fajee itam yow yaay borom produit yi. waaw ba mu satisfait oram bi sax xam nga man njaay ma la. day faj lu mel ay hémorroïde mhm. ndoxum si di ballonnement. muy ay produits yu naturel ay produits naturels yoo xamante ne herbe rek ak plante. jabet lu ne moo sonal réew mi. dama ne jabet. Mhm. lum garaaw garaaw garaaw dama koy raxas si nit ki ba mu set ñu ma mhm. seeraan xam ne lii may wax xam nga nekk si internet di wax moom di di wax dëgg am na ñu lay ñoo xamante ne jëflante nga ak ñoom man ñi may seeraan xam na li may wax man Ndiaye Basmala jafe dama koy faj si nit kattan dama koy traité si deux semaine mu taqali koog yow dix ans ngay am kàttan. Mm-hmm. hémorroïde interne externe. hémorroïde interne externe dama koy traité. Mm-hmm. alors dama koy yokk ba mel ni bu fas. waaw sëñ bi yaakaar naa ne rang bi. nar naa ba mel ni bu fas bu fas laa la wax de. ay ca ñu bàyyi la nga tàggoo. <laughs> kon bu ko defee ñu ngi leen di ñaanal <laughs> jaay jàmm ak salaam. Mm-hmm. di nuyu ñi nga xamante ne comme comme ni ma ko waxee woon rek sànq si si commencement bi. Seydina Issa mi nga xam ne mooy secrétaire bi. su ma fi nekkee soo nekk liggéey bi day dox. yéen i maa ngi ñaan seen site bi macha allah yal ko yàlla gën a yëkkati ba fu ñuy dégg ñëpp dégg leen macha allah di leen ñaanal jàmm ak tawféex di wax ne Ndiaye ko wax ni ragal euh, euh, a soxla ay numéro contacté leen ko fu ngeen nekk ci réew mi wala àdduna àdduna wërngal këpp incha allah lépp loo xamante ne jafe-jafe la yàlla na ko yàlla suñu borom saafara waaye day gën yaatu ndax li ñu war a waxtaanee des na ay ponk yu bëree bëree bëri Medina TV dina ci ñëw ak yéen su ko defee ñu jox leen rendez-vous très prochainement ak keneen koo xam ne dañuy sekk ak moom jotaay jërë ngeen jëf